tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub dëgg la billaay dëgg la billaay dëgg la maa ngi jéggalu bu billaay sëñ Fall rek laa yaakaar la dëgg la jërëjëf Fall jërëjëf amin amin amin amin dinañ ko dégg ah di santaat waa Jamra rek ma ne ko di santaat waa Jamra bu baax a baax a baax a baax ndax nee naa la loxo nee naa la xale bu setee loxo day mën a bokkal bépp mag xaw ma ni ko olof di waxee ni ko olof di tënkee maa ngi jéggalu bu baax a baax waa da ngeen di déglu ma jéggalu tuuti ndax maam Matar waruma woowati ci ay safaan parce que nee naa la lu am ci àdduna bi rek moom daf may woo moom lu am daf may woo ne ma maam ma ne ko ah mu ne ma xanaa doo taalibe Serigne Fallou Mbacké ma ne ko man taalibe Serigne Fallou laa mu ne ma ab taalibe Serigne Fallou day jéggale di jëllale man amul sama benn moroom bu may dawal amul sama benn moroom bu may ragal ci àddina amul kenn koo xam ne damay delloo sa avance amul man sama fit ak sama njàmbarte dama koo ragal waaye nag comme yow tey dara bu xewee nit ñi baax ci réew mi yow la ñuy woo nit ñi baax ci réew mi yow la ñuy woo kon nag tubaarkàlla maasàllaa gàcce ngaa laa ma maam Ndiaye Savon ndax maam Matar boo defee dara ci réew mi dalay woo soo njéggalee sa soo soo jébbaloo nga ne lii maa ngi koy jéggale lii dootuma ko defati bu ëllëgee bu dara amee dalay woo mais boo defee safaan mu woo la nga jaay ko reewande boo doon daaneel réew mi dootula woo te nee na ma xam gis ka weeru koor gi ñu nekk mu ne ma dangaa foog ni fi ne dangaa am ay ndam amoo ndam mu ne ma koor la ñu nekk te dëgg la ku ne ñaan na ma ku ne ci àddina ñaan na ma ma ne la duma bàyyi waaye nag jaaraama maam Matar Gueye ndax nee naa la lu ma taxawal ci géew mi rek mbaa ngi dégg lu may wax rek danga may woo ne ma ne loolu du àddina kon maa ngi jéggalaat maa ngi jéggaluwaat di jéggaluwaat samay fans di jéggaluwaat maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax di jéggaluwaat waa Jamra maa ngi jéggaluwaat waa Touba surtout sëriñ Fallou Mbacké direct léegi la ma woo mu ne ma taalibe Serigne Fallou ma ne ko ah mu ne ma taalibe Serigne Fallou ma ne ko ah mu ne ma taalibe Serigne Fallou Mbacké bëgg ko du yomb ànd ak moom du yomb critique yi day bare waaye taalibe Serigne Fallou day ànd ak muñte waaye nekkoo ci réew mi ku la wokk nga xuri ko mu ne ma ñun dañ lay suivre waaye tey suñu xol yëpp a naqari ndax tey kàddu yu ñaaw yi ñu gis nga ko yëkkati di ko wax may jéggaluwaat sénégalais yépp nag du tappet moo tax may jéggalu du ragal moo tax may jéggalu du bañ waxaat moo tax may jéggalu waaye nag tubaarkàlla damay jullit di wax baatu laa la laa am ay kilifa diine yu fi nekk nawloo ma am na ñoo xam ne buñ doon rëq réew mi mbaa ñuy daaneel asamaan mi duñ leen woo ndax waa Jamra buñ la woowee ci lu baax lañ lay woo ci lu baax loolu mooy defal li dama en def lu rëy ñu woo ma maa Matar Gueye woo ma ma ne ko maa ngi jéggalu lu mu wax ma ne ko maa ngi jéggalu mu ne ma yow de doom neex ngaa waxal ndax neex a waxal a tax tey luñ la wax rek nga ne maa ngi jéggalu defal vidéo te bu ko defati mu ne ma yow yaa moom sa bopp soo bàkkaar yow yaa koy gàddu waaye man am naa droit nekk ci diine bi ak lislaam gis la nga nar a dugg ci sërëxal ma woo ne la arrêteel xam nga Sénégal daa bëri critiquer tey boo ne woon Mame Matar moo ma woo te tegoo ko ci live bi dañu naan daa daw man duma dawal sama moroomu jigéen jigéen ngay jigéen may jigéen ngay taf nanaa may taf nanaa boo yaakaaree ma dawal la nga tëyëx miir bu bari pont duma dawal sama moroomu jigéen man waaye nag bët bu rusul tot dama am ay mbokk te samay mbokk ñu ngi leen di laal ba ñuy ba mu jaral leen ñu toog di ko jooy waaye yéen boo leen jooyoon ba ñu gàddu leen yóbbu leen hôpital ñu ne leen da ngeen a dee ma baasal leen dëgal leen delluwaat ci coow li ndax man duma daw xare man bu ma neree dal daw xare yal na yàlla jël sama bakkan man duma daw xare li ma maam Matar wax nag loolu laay def nee na ma naa jégg ndaysaan waaye way yàgg na ci réew mi de barki Seydina Mohamed waaye gaan bii ma teg tey amoo bay xale yi tey bu ma taalee laaj bi dañuy foog ni xulloo maa seen xulloo bi jeex na xam nga xulloo danga koy xulloo ci fulloo ak fayda ak temps ku ñu mën doo noppi ku ñu mën chéri ku ñu mën doo noppi lëy bu la mënee doo noppi dangay wax rek waa lu may waxati fi ne xulloo bi xolal lu waay wax rek waxoon nga ko amul lu ci waay di wax rek te waxoo woon ko amul fi mu ne nii lu ci waay wax waxaatoon nga ko man nag wax waxaat du bari wax waaye dañuy xaaraat ci yeneen level ñu ñëwaat ci yeneen level xam nga li waykat boobu naan dajjil beneen paquet bi nga dajji woon gaaw naa jeex dajjil beneen paquet jeex na c'est fini gasax cent cent 78 418 05 94 77 369 04 45 gam bi ma teg 20000 la gam bi ma teg 20000 la dangay am gel de douche am savon de visage bu la neexee ñu dindi la gel de douche bi wala sa wala savon bi defal la peeling jox ma peeling bu ndaw bu la neexee ñu defal la nii 20000 francs maa chérie promo bi jeex na promo amatul promo bi jeex na. nijaay noo def. waa jox ko fu. 78 418 05 94. 77 369 04 45. ngeen woote téléphone fu ngeen mënti nekk ci àddina ñu fekk leen fa libéré leen ko. ma wax day jeex. boo waxee sa fulla wax sa fayda wax nga li ngay wax ba pare na jeex. boo ci nekkaatee di wax xale yi dañ lay kokkali dugg naan la wuu naan la sàcc bi wala ñu naan la wee ngay dugg ñu naan la luppee xale yi ako ñoo ñàkkee sa loolu lañ lay bindal naan la luppee naan la fi nga génn baaxul man nag wax fa dëgg yàlla nii ma toogee nii damaa pare 78 418 05 94 77 369 04 gambu ñaata kan la waaw waaw client boobu war kii de bu ma amoon ñetti 30 mille yu mel ni moom wàcc daganal na ma gàmbu 30 mille jox ma nee ko dama defal ma defal la ñaari leero korino ina jox ko gàmbu 30 mille dëgg la kay le travail qui paye qui n'est pas travail qui paye rien du tout 78 418 05 94 fu ah da ngay compter gam gam bi may tegaat nii gam bi 15000 la Fane jox ma ay piling boo amee piling 20000 bu la neexee defal la gam bu 30000. andi piling. ànd pilim bu ndaw gaan bi ma leen tegal bu leen neexee ñu defal leen ko 30 000 xaaral day am pilim non promo bi chéri dafa jeex crème de visage 5000 la jox ma savon de visage ak crème de visage ma wax leen ci ay bal jox na maa chéri bu la neexee savon de visage bi ak crème de visage bi 8000 la lay dikkee cent wooteel 78 418 cent 94 77 369 04 45 crème de visage ak savon de visage crème de visage bi day ak acné day weexal kanam tàll mais boo diwoowee peau bi ba kanam gi weex bu dee am na kanam yoo xam ne dafa dëgg day jël ñaari crème de visage mais bu fekkee am na kanam yoo xam ne dafa ko eh réew mi maa mën duma emprunté jeeg duma ko sóor samay maas duma boom mooñaaleeg sama moroom lekket lii may jaay dama ko mën duma fay influenceur loolu ngay bañ a dégg fa la force danga koy dégg loolu sama hymne national la bu ma commencé fajar ba taal dama naan salaamaaleykum duma emprunté jeeg duma ko sóor samay maas duma ñaan sama moroom xooñ xale yi di yuuxu ma daan la moo ngi nii crème de visage savon de visage boo ko diwoowee bu fekkee bii nii xeesalu la ma xàcc ci yoonu lee d'accord naana mama piling moo ngi nii toog naanaa piling rox ma ne ko xolal man xale man la ñuy topp waaye man rox laay topp bu nee naanaa piling naanaa ñaari dëkk ñaari gaar ah waaye li nga tuddee sama xarit bi neexu ma wala ah, kii nu mu tudd lakka falava waaw mooy la <laughs> ku ñuul ki mu ne ma la la ko tuddee fanta mbuub aji maas mu ne ko borom nag borom tànk nag yi oh, non naanaa pilim ñaar yi boo ko jëlee te xeesoo ma xàcc ci u leeda a loo day jeex waaw waaw lu may waxaat man mii toog buñ ma dee waxaatal lu may wax mën naa fee wax lu ma waxul woon waxal Baye Dame mu ñëw jël oto oto bee mu ñëw tuuri mbalit ma eh Fall waxal Baye Dame nañ ñëw tuur mbalit mi nag xanaa pare nañ. maa ceer bi ma xëyee ba tey maa ngi jamb maa ngi nii ñëw léegi rek dëkkaat ay paan bëri koy tege ma jamb ko jaay ko xaalis bi nag tiital na xale yi de dañuy laaj na xaalis bu lee da koor gee ma ko may lee bu baax mën na lu ne xanaa xamoo leen jamb lee da koor ngay jamb lee da te jambandoowo ko kenn nga teg ko ci heure ak temps ak accès di ko jàmm mu normal xale yi di ko diwoo xees seen yaram yàquwul amuñu acné amuñu effet secondaire woo xale boobu day jaay diw ay millions lay am xam nga lu tax waaye loo jaay ci benn année fay ko influenceur maa eh, man lu ma jàmb dama koy jaay li may fay influenceur loolu laa yokkee dosage kii bi laa mbalit mi doo leen ko génne tuuti. na a fayee lu ma jàmbee dosage yi gën a fort. jaay ko ci fulla fayda ko ci heure. ba ba daaneel te duma wax wax bu ñaaw. damay xuloo ba daaneel te duma dudd lu ñaaw sama wax ku ne mën nga kaa dégg waaye xam nga lan moo gën a bon ci àddina ñuy déglu sa wax di ko envoyé doomu aadama kooku naan est-ce que nga foog ne yaa rey gaynde ga xuloo day civilisé maa ngi jéggalu tous les maa ngi jéggalu tous les sénégalais xam nga lu ma leen di jéggalu ci wax yu ñaaw yi ngeen dégg te man maa ko waral. nit ku baax ku nekk ak may woo waa Jamra boo leen manqué respect dootuñu la woo waaye Mame Matar damaa woo live en direct ma koy rafetalu di ko jéggalu bu baax a baax a baax a baax Mame bi ma woowee léegi dama ko def ah, dama ko def main ba mu nee jébbalul sénégalais laa dindi mais libre yi Mame Matar maa ngi lay jéggalu bu baax a baax di jéggalu tous les sénégalais di jéggalu tous les di leen wax wax ji pare naa ci te dootuma ci waxaat ndax bal boo bal bu bal bu ma war a wax rek wax naa ko kon mënuma fee wax lu ma waxatul woon waaye moo bi nga xam ne sénégalais yi moom ngeen di bañ a dégg heure boo leen ko xëyee indi national la moom laay ubbee muy du ma emprunté duma du samay maas du ma ñaan sama moroom xooñ loolu moom sama indi national la moom laay ubbee ci kàttanu yàlla ku mooy bi ma yoroon di di door di di dóor bal waali sekk tubaarikaal la ay wax amatul beneen téléphone bi anamu damaa bëgg a yowee jëlal bultuf bi nga ñëw changel ma bopp bi 78 418 05 94 waaw waaw kër a ngi noonu dëgg la kay 77 369 04 45 sama piliyaan bi nag ñi ci bëgga toog ak a bari ku wax tudd piliyaan bi naan nga toog si sa njoowaan ma ne ko maa njoowaanu kay njoowaan wee neex kay mbay di sama waay da jàmm ñal jaara busu wala mañ se bi jaara